dafa bëgg a xoj Bougane Gueye Dany maar de tali rawatina nag ak élection yi nga xam ni kon moom la ñu jublu boo bëggee dégg-dégg daal xaxar la rek xaxar la rek la tribune yéene kaa ne ay huissier ak ay gendarme day waaw lañ yónnee démb nag ca deeme jaagoogee ne nañ leen xayma matériel bi nga xam ne moo nekk seen TV bi ak Zik FM gi la ñaata la inventaire ba waaw dama ne la gis nga liquidation gi nga xam ni kon moom la ñu yëkkati ni lee ngir daal di jaxat-jaxate yàqate kon waa deeme jaa ah mbir boo xam ne day waxul lañ ca biir laa la wax te gis nga nag buñ paree ca inventaire googe waaw nangoo matériel bi ci boppam kon foofee la gaa yi jëm ar di tali yaa ilaahi la la waaye lan moo tax acharnement bi looloo jaaxal ñe baxta li mi caas ne mënuñoo sacrifier caxa-caxatee benn groupe de presse parce rek yow da ngaa bëgg liquider benn homme politique ayaa ah, bi mag satla crous le mandat yéene gis nga coow lii xam ne moo dox ci diggante nguuru Sénégal geeg des médias waaw mbir mi yi di xalaat de lu gars yi di xalaat la wax direct news de waaye njiital sa bopp gi lée buggaan géey dani mbaadu day déranger nguur gi di pouvoir bi looloo jaaxal ñëpp les fa yéene kaa ne en tout benn huissier ak ay gendarme day waaw la ñuy yónnee démb ca kër ga laa la wax waa dee média ñi ngi naqar lu kon def mel ba noppi di ne yoree luñ kenn bor laa la wax ci wàllum impôt bi aa waaw libération yéene kaa xanaa xamoon leen ni gars nañ ko juróom-ñaari fan ci weeru octobre bee ñu génn démb nag ñu waa huissier ak ay gendarme ngir xayma matériel u yi fanweeri fan lañ ko may maanaam weer 30 jours lañ ko may mu dem fay bu fayulee matérielu Sen TV bi ci boppam dee média dañu koy nangu allahu akbar la ilaha illallah dama ne la lañ ko may de lu ko may rek maari di taali problème yaa ngay démarré nag problème ba kay ma nga ca biir justice ba laa la wax ubbil enquête yéene kay ne ñu gis nga justice bi le palais ba ca boppam ñoo leen tënk jàpp leen en otage mënuñoo dem mënuñoo dikk maari di taali magistrature googee waaw xam nga lan la ay teg sam wax mooy ne gën a gàtt at bu ne war nañ caa réunion ñaari yoon dégg nga de dégg nga de ay poste yu bëree bëri laa lay wax ni lée amul ko fa toog ay poste vacant la te loolee nag mooy yàq liggéey bi nga xam ni kon maanaam ma nga ca wàllum justice googee wàllum justice googee vingt-quatre heures yéene kaay nee na waa ñoo lànk day ñoom Murtada Seck waaw nee na ñu Macky Sall mais lan lay xaar pour fal doyen des juges bi la te bu ñuy fal tam nañu fal ndaw yi jàng nañu compétent nañ les jeunes waaw Macky Sall na bàyyi màggat yi nga xam ni kon nañoo retraité mu leen di fal exemple Mamadou Ba Sadio Camara nii te conseil constitutionnel waajoojee kañ la retraité yàgg moo tax daa sekk ak ñoom àndal ak waaw nee nañu tukki yi nga xam ne président Macky kon mi koy tukki dem ci bitim réew waaye dellu see du jàkkaarloo askan wi lee wax leen ne fa ma tukki woon lii laa fa jëlee ak lii ak lee def contrat am njàmbaarte jàkkaarloo ak taskatu xabaar yi de kon xamoo mag waa ñoo lànk yi nga xam ne dañ leen a dàq mais lii nekkul dara lu dul wàllum fay wante rek mel ni kuy jël seen revanche cleaning day ay set setal yéen leen rato yeeg bale yi ñuy set setal loolu loolu xam nga gis-gis gu gàtt ci ku bëgg a jëmale gis gu gàtt weesu lii set setal wal waa APR ak suñu gàngoor laay waxal gis ngeen candidature Macky Sall ci 2024 bi lée daa dépendre ci résultat élection locale 2022 eh waay Samba Mahmoud Saleh ne waaw si on perd ces élections ce la peine de continuer bu ñu ñàkkee élection locale yi mais jaratul ñuy continuer laa la wax naan Macky Sall yeggale ay projet ak lu ni mel parce que résultat élection locale yii mooy atte coow li ci troisième candidature Macky dégg nga de dégg nga de dégg nga na am na ci ay opposition yoo xam ne duñu gis lu baax duñ ko wax xas kilifa diine yàq réew mi booloo bi ci Sénégal ñu tas ko ñooñu dañ leen a war a gas suul leen mooy waa yeewi askan wi la ah Mahmoud Saleh ne waa yeewi askan wi dañoo war a gas suul leen bu dee nag ay wàllu Sénégal mooy bu ñoo Abdoulaye Wade bi waaw ñooñu sax mën nañ leen a nangu daal wàllu waaw wàllu Sénégal waaye gis nga wàllu Sénégal jooje tas na mar d'Italie laast parce que Papa Diop day daal dinay gedd na génn na wàllu Sénégal déposé ne tamit caution aw box bobi li ne Papa Diop day bàyyi na Abdoulaye Wade di dem na de ba nuppi déposé caution critique la wax sur côté yéene gis nga élection yi ci Ndakaaru Njaay jël Jóob waaw capital bi tere nelaw coalition yi laa la wax critique yéene kaay ne Barthélémy Dias candidat par force wala mbong mbong lu critique yéene kaay ne taxawu Dakar lalal nañ tapi xuus Barthélémy Dias nee nañ ko yaay suñu candidat waaw parce que commission d'investiture département bu Ndakaaru Njaay jël Jóob nee na soxam war ci ni fii mënoo fee nekk candidat déet waay réew mi côté kay lañ ko defoon lañ ko ko sa candidature bi mënul jàll ci yeewi yeewi askan wi day kalaame bi nga xam ne kon Cheikh Gueye bu LD kalaame woon na ko recours ba mu dugaloon ngir ñu niilal procès verbal boobee nga xam ne moo daal di dëggal juróom-benni candidature yu yeewee askan wi nañ ko dindi waaw commission d'investiture bi démb génnee nañu ab tontu de xamal Cheikh Gueye ne ko loolu weesu na l'info yéene kaa ne candidat à la bu yeewee askan wi ci Ndakaaru waaw Barthélémy Dias rof galgal de soo am maar cause te waa taxawu Dakar tam xam le nañu ne Barthélemy Dias mooy seen candidat yéene kaa ne mais daw deuxième bi nga xam ne Khalifa Babacar Sall daal dina koy daw moo jur coow li lée diggante Barthélemy Dias ak Soham Wardini l'observateur ne taxawu Sénégal mais bataaral gi nga xam ne moom la Khalifa Sall nekk ni lée mais lii moo doy waar Barthélemy Dias ne déggoo leen ma di ma dëggalaat fi lée xamal nit ñi carrément ne fañ nekkoon tuguñ fa suñu candidature bi amul dellu ginnaaw sur saane waa taxawu Dakar kay Barthélemy Dias lañ tànn de laas ne Aïda Sow Diawara day ma ma nga tàng jër parce que Aïda Sow Diawara nee xel xalaatul sax APR ñooy franklaayu di jël koon commune yëpp journaliste bi ne ko Alioune Sall nee na yéen ay xuusma ñàpp ngeen Aïda Sow Diawara ne ko déedéet booleewu ma ci de moom waa parti am lay waxal Alioune Sall xaw ma kan waaye man moom Aïda Sow xam na sama njariñ barki dee moo njaay rek la taxaw fi la di ma tagg